Euh, tey kon xam naa am na ay questions yu xaw a tax yu fi nekk mais ñu jëm si digg rek ndax wax bi xaw nañu gàtt incha allah euh, mbokk mi mbokk mi moom li ñuy laajte Oustaz Omar mooy euh, lan mooy jihaad lan mooy jihaad si islam alhamdulilahi rabbil alamin jihaad ci islaam buñ ko waxee dafa am ay charte jihaad ci islaam mooy gàddu jaas yi walla gàddu arme dafa bëri nag ay façon nit dana jihaad ngir alalam nga doon dox ñu bëgg a nangu sa alal nga xeex joxe sa bakkan nga rey wala ñu rey la su ñu la reyee da ngay dem àjjana man maata duuna maalihi fa huwa shahid wala nit tëb dugg sa kër bëgg foyee sa njaboot mbaa jël sa alal nga xeex ak moom kooku nawu la ci jihaad mais jihaad bu mag bii ñuy wax am na ci boo xam ni noon yi bu ñu ñëwee cib dëkk bëgg koo nangu waa dëkk ba riposte loolu day tudd jihaad mooy comme bu Palestine bi day tudd jihaad beneen bi dëkkab islaam su fekkee ni jógoon nañu am ñu jóg ñu dajeeg ñi dul jullit bàyyee leen seen zimma ñuy fay impôt di def yeneen islam yeneen seen diine sant yem ja su boobaa jihaad mën naa bañ am bu yooyu dàqoo nga xam ni imaamu jullit ñi tënk na ni dañuy joteeg nangam sàngam sabab bi cause bi lii la muy cause bu wér islaam su boobaa ku ci xeex xeex nga ci suufu jihaad mu def nag nit rek jógal boppam yor armam def mbiram tuddee ko jihaad loolu moom moom moo ko tuddee jihaad mais loolu kenn du ko tuddee jihaad wala jóg rek dem fekki mbooloo moo xam ne dañ ñi mbooloom jihaad la te la ñuy xeex tegiwul ci principe yoo xamante ne yu ñu xam la kenn du ko tuddee jihaad ndax lépp luy jëm ci tuur deret dafay dellu ci xukkaamul muslimin day dellu ci état jullit ñi borom xam-xam yi toog ba tëral ni lii lu jar a jihaad la su boobaa ko ci xeex-xeex nga ci jihaad allah ci gàttal. tey alhamdulilah euh, mbokk bi moom li mu dugal nga leeral ko mooy ñaari léegi cest à ak tablier ak ak ak ak daawa c'est-à-dire est war a def daawa ñoo war a woote wala am ñu ngi ko jagleel foofu laa la dugal. alhamdulillahi rabbil alamin tabliig jamaa la mbooloo la boo xam ni jàmbaar lañ ci wàllu daawa ci wàllu woote wax dëgg yàlla man de apprécier naa leen lool ndax dafa am côté ci daawa lu ñuy def loo xam ni néew na ma gis ñeneen ñi di ko def mbooloo nag toujours dana am yu baax dana am safaan mbooloo yépp a jéem tey mbooloo ahlu yi nga gis yi woow te woo salafiya noonu lañu ñu mel du ñu wax ni salafiya moo am safaan mais ñiy dund salafiya dañuy def safaan su boobaa dañ koy askanee salafiya kon tabliir jamaa boobu nga xam ne tabliir la dañuy dem ci dëkk yi ci marché yi ci bërëb yi di woo nit ñi ci islam di leen dugal ci diine amaan ak jëmm ñëw féete ci jàkka fanaan fa di fa togg di fa lekk am na ñu leen koy taxee mais ba tey kenn amul texte bu ko xaraam kenn amul texte bu ko tere nit ki moo tànn ne day daawa ñëw gis bërëbu jàkka mu tëdd fa fanaan fa ba bët set fan lañ ñee islaam day tere ku fanaan ci jàkka amut fan lañ ñee islaam day tere ku lekk ci jàkka wala ku fa togg amut bañ nañ ko ba ahlu suffa ci jàkk yonent bi lañ nekkoon yonent bi ne ku desal indil leen foofu lañ doon indil ñuy lekk kon loolu di illa ci wax ni tabliir ay nàngam lañu walla nàngam mu des nag ñii daawa ñu jàngal leen lan mooy daawa kenn ku nekk fa nga toll ak na nga toll mën nga caa daawa mais bu dara desul nag wax ci ay texte moom na doon ku xam ndax du ñu teg fii ay comprimé bii nekk drogue bii di rey bii anti inflammatoire bii nekk luy faj asma nga ñëw xàmmewoo woo ci benn ne nit ki daa feebar jox ko lu ko rey lan moo ko sabab mooy ñàkk xam kon génn bi ñuy génn di jottali loolu mooy tablier ñun ñi fi nekk buñ ko doon def réew mi changé ñun ñi fi nekk imaamu jàkka yi xutba ñiy jàngale ci école yi baax nañ de ñu ngi def lu baax de mais génnuñu seen kër la ñu yem ci seeni oto la ñu toog seeni bureau la ñu toog ku leen woowul du ñu wax kon lu ñu jëriñ daawa bi luñ ko jëriñ gaa am na lu ñu wax mais li ëppoon ñu war koo jëriñ daa mooy dañoo waroon a génn doo fekk ci ñoom kenn lu ko jóg lu dul balaa ngaa def rek dañ lay baasal ba mu rafet nga toog ñoo ne inna laa boo paree dellu sa kër bu dee lii mooy daawa kay kenn dootul ñëw mais da ngay toog nga ne dëkk sàngam dégg naa fa nangam naa jóg jël su may mooye dem ci wax ak ñoom naa dugg ci marché bi am na jigéen boo xam ne boo dajeek moom boo ko waaree mu waaru am na koo xam ne ci oto bi mën nga koo waar mu waaru mais yow da ngay toog rek ñu war a nga doog a wax ba pare ñu défendre loolu bëgg a daaneel li ñee di def maandu amatul kon tabliir am nañu ay njuumte la shakka am na te njuumte yooyu su ma ci doon wax dana bari comme su ma doon wax seeni mbaax mbaaxit dana bari lool lool lool loolu moom mooy jamaa tabliir ci gàttal ahlu sunna nga xam ne salafiya nag lañuy ñu privilégié ci daawa dara gënu ko mooy jàng ak jàngale buntu la waaye yemut ci walawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddin wal yundiru qawmahum ida rajalu rajau laallahum kon doo jàngi ba ñëw rek toog ci sa bureau ne yaa ngi daawa ku la defaloon conférence def traag yi doo dem ne yaa ngi daawa déedéet mbir mi nag génn da bokku kon salafiya yi nañu changé ci lenn ci seeni doxalin tablir changé lenn ci seeni doxalin ñu teg laax bi soow ko ñépp mën a lekk jàmm na ñooy mais kii toog fee di sànni xeer kii toog fee di sànni xeer te ñoom ñépp ñu bokk jubluwaay loolu lu ñu mat a seetaat la insha allah mbokk mi moom euh, day dëggal li nga doon wax sànq si kenn yi

ki comprendre da nga koy jàppee liir buy raam da nga koy jàppee kuy raam xam nga kii raam di for di seex mën naa for xeer seex mën na for gunóor seex mën na for leneen seex mais bu fekkee bu foree xeer seex nga dindi bu foree gunóor nga doon ko ni teel lii baaxut kat du ko teel a xam parce que xelam àttan la gudd loolu su jubee lu koy lor da nga koy génn kon wayjur bi xamut li nga yore amal yërmati ci moom di ko ñaanal yàlla fexe yow nga wàcc. bul wàcc nag wàcc bu lay génn ci sa diine su la yónnee demal soo amee defal ko su la santee gaawal toogal ci wetam dee ko ñaanal defal ni Abu Hurayra defoon dee ko wéttali jikko bu rafet boobu muy gis ci yow bu yàggee insha allah na la topp noonu la ñu dimbalee waajur waaye waajur bi nga xamante ne xamul nga tëb ni ahlu bidaa la wala ahlu shirk la bàyyi ko fële ngay dem yow baaxuloo nga yore lekk bu neex bàyyi sa ndey ak sa baay di ko joxe jàmbur wax dëgg yàlla baaxuloo kon fexeel sa ndey sa baay xam ni lii nga yor lekk bu neex la comme ñoom la njëkk xeeñ te it nag sabab bi ñoom la jàng bi nga jàng ba xam bu du war ak ñoom du sotti kon sabab bi ñoom la ñoom am na lu ñu def li ñu def fexe leen rendre leen la mu ne am loo leen jox tuuti loolu la ñuy jëfandikoo waajur incha allah. te xam naa kon li koy faral di waxee rek